Euh, li ñuy wut ci formation bi mooy dooleel wala yokk pas-pas ay jeunes ay ndaw yoo xam ne dañoo bëgg exercer wu ci li ñuy wax métier wu cinéma te dañoo gis ni pour jàng yenn yi fii day day jafe ci ñoom parce que moyen la laaj xaalis la laaj temps la laaj yooyu donc mais du tere ñu ngi yëngu mais sooy yëngu ci dara te amuloo formation bu doy sa produit du am qualité bi war donc ñun li ñuy def mooy xam ne ñu amuñu moyen ñoom amuñu mën-mën pour def ay euh, fay ay formation ñun dañuy def ak suñuy partenaire indi ay nit ñoo xam ne ay professionnel lañ ñu nekk Belgique parce que partenariat entre Sénégal ak Belgique la di ñëw fii di di mën a wéccoo seen xam-xam tànneef bi waaw tànneef bi su su doon suñu sago ku ku bëgg rek ñu ñu tàggat la waaye sooy dugg ci dara aussi il faut nga am minimum il faut nga am lu tuuti loo loo loo àndal donc ba ñuy tànn dañoo def appel à candidature boo xam ne lu ëpp fanweer fanweer ak juróom candidat indi nañu seen i dossier dossier itam ba ñu koy teg dañoo ut ay professionnels yoo xam ne am nañ xarañ ñu ñëw wax ni ñu ah pour def lii ngeen bëgg a def lii ak lii ak lii lay laaj ñu donc ñu exiger ñi di participer ñu indi critères yooyu yëpp ba pare ci critères yi aussi dafa waroon a am ñoom

de l'acte autorisation autorisation de tournage c'est un rôle. est-ce que film bëgg du tas de du yàq un yi yooyu dañ koy contrôler moo may je nit là. ñuy faire film bu film nous clip publicité Nous a déposer autorisation de tournage Là, nous ci dërëm ñun dañ leen ah, est-ce que changer mais intervenir dans le fond ce lu de dëkk bi dañuy dañ lay interpeller nee attention lii boo ko changer noonu la boo ko ah en tout cas boobu gis nañu ne euh, mën a indi ngaañoo ak xiiroo suñu dëkk donc loolu yëpp on protège dañuy protéger dañuy aar nit